الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ويقول المولى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم عباد الله أيها المسلمون لقد كثر اليوم في المسلمين التشبه بالكفار في كل شيء في كلامهم ولباسهم وهيبتهم بين الرجال والنساء مما لست أحصيه في مقامي هذا إخواني في الله mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur borom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ñoo ngi ci jeexitalu atu nasaraan yi bu ñu tollee ci bis yii da ngay gis lenn ci ay jullit di xëccoo ak di jiiroog nasaraan yi yi ñuy def ci bëccëg yi ñu nekk te borom bi tabaraka wa taala dafa woo way gëm yàlla yi ci quraan ci baatu ngëm la leen yàlla woo muy yaa ayuha alladina amanu ee yéen way gëm yi yàlla nee na ngàllawaay laa tattaxisu lyahud wannasaara awliya ngàllawaay yéen way gëm yàlla yi bu leen jàpp yahuud yi ak nasaraan yi ngeen di péete ak ñoom borom bi nee na ñoom ci seen biir baaduhum awliyaau baad ñoom ñoo war a far ñoom ñoo war a féete ñoom ñoo war a ànd waaye yéen ñii di ay jullit yi ne da ngeen maa gëm yàlla wa man yatawallahum képp ku dem àndi ak ñoom borom minkum ci yéen jullit yi borom bi nee na fa innahu waa jooju di jullit bàyyi fi jullit yi dem fari ak ñoom di xëccoo ak ci 24 ak 31 décembre ak di xëccoo ci ñoom ci ay kadoog yu ñu xamul borom bi nee na fa innahu waa jooju di jullit minhum ca ñoom la bokk ku yàlla ne nag bokkatoo ci jullit yi bu yeboo nga bàyyi jullit ku yàlla ne jullit yi faratoo ci ñoom àndatoo ci bokkatoo ci wallahi bu yeboo nga def lu nekk ci diine du la tere boo dee nga dugg safara parce que yàlla moo la génne ci jullit yi nekkul na jullit yi la génne waaye yàlla moo la génne ixwaan yi ci weer wi nu nekk jullit yu bare bari tey ci àddina jël nañu melokaanu yahuud yi ak nasaraan yi ba kenn mënatu koo lim ci lépp seen façon langage waxin seeni yére seeni jëmm lépp lañ jël bàyyiwuñu dara ñun jullit yi xoolal weer wi nu nekk ñaata jullit ginnaaw barki démb 24 ci weer wi di nga ci gis borom kër yi genn wàll gi yëpp dem jëndal seen doom yi kado xoolal marché yi nu mu feesee ay kadoo ki pétard ñan ñoo koy jënd jullit yi ñoo koy jënd te borom bi nee na képp ku ànd ak ñoom fa innahu minhum kooku ci ñoom la far rawatina nag ndeysaan wax ju garaaw ju ñu wax yàlla tabaraka wa taala ngay dem di far ak ñoom di feetu di ànd ak ñoom ci wax ju bon jooju nga xam ne tey kuñ ko waxoon sa sa kilifa kuñ ko waxoon sa baay doo julli si jumaa ku ñu waxoon sa papa koñu sàngam ma ngi fay ngénte te amul jabar lan lañ wax sa pap wax jooju lañu wax yàlla borom bi tabaraka wa taala nettaluñ ko ci suratu maryam mu ne wa qaalu ittaxaza arrahmanu walada nee nañ yàlla am na doom nee nañ yàlla am na doom lan la leen yàlla tontu mu ne laqad jiitum shay'an idda wax ngeen lu garaaw subaa di su ko yàlla tabaraka wa taala nangoon tënk ci wax ju gën a rëy wax ji dina ko wax moo tax mu indi baatu idda laqad jiitum shay'an idda wax jooju ci garaawaayam sax yàlla mu ne takaadu samaawaatu yatafattarna asamaan mu ngi xotteeku wa tanshaqqu l ardu suuf di xar wa taxirru l jibaal montagne di mabb limaasa an daaw lirrahmani walada ndax nee nañ yàlla am na doom waaw loolu nuñ koy waxee ab yàlla ab julit buy jàng qul huwa allahu guddi ak bëccëg dégg loolu dem di fari foofu di jëndal ay doomami kado yarul ay doomam ne leen weer wi waruñu jël cadeau gis ngeen même sibs bi ñuy jaay sibs bi dañ cee def Père Noël te sunu doom yi ñoo koy jënd sunu doom yi barki démb la ma benn mbokk di woo France ñaari doomam dañoo dem jàngi ki leen di jàngal ne leen est-ce que am ngeen cadeau xale yi ne ko déedéet ndaw si ne leen lu tax génnu leen ci mbedd mi ngeen xool asamaan Père Noël wàcc jox leen cadeau ñaari xale yi ne ko ñun ki ñu xam mu dëkk asamaan tuddul Père Noël ñun ki ñu xam mu dëkk asamaan tuddul Père Noël enseignant bi daal di tiit ne xale yi waa kooku nu mu tudd rakk ji daal di xool mag ji ne ko wax ko ko mu ne ko allah allah loolu mooy tarbiya kooku tey xale yooyu bu ñu génnee bu ñu gisee sib su Père Noël ñu koy jaay xale yooyu duñ ko jënd amaa ñun nag amuñu boobu tarbiya ak sunu doom parce que ñun sunu bopp ñun ñooy jënd cadeau yi di ko mayee ci feet wi ñun ñooy jox sunu doom yi nañ jënd ay pétard ñun ñooy fête 31 décembre ñun ñooy rendi ginaar yi ñooy rendi xar yi ñooy baal ñooy peinture tali yi ñooy defar lamp yi pour lan lan la ñuy feetu lan la ñuy feetu juddug Isa juddug Isa lañ lañ ci wax yàlla mooy baayam ñun ñuy feetu lool hatta hatta jinne yi bi ñu déggee nit ñu dof ñi naan yàlla am na doom lan lañ wax wa annahu taala jaddu rabbina ma taxasa sahibatan wala walada hatta jinne yi hatta jinne yi dañoo weddi lool daan ne wa annahu li wóor tey mbir taala kawe na jaddu rabbina sunu màggaayu boroom sunu màggaayu boroom ma taxasa sahibatan wala walada jabar ku ko am da ngaa manqué doom ku ko am da ngaa manqué moo tax jabar ak doom yàlla jomb na ko parce que yàlla dafa mat képp ku dul yàlla da ngaa manqué parce que da ngaa am jabar ak doom ndax mottali la moo tax nga bëgg a mat moo tax nga ut soxna am doom yàlla nag jomb na loolu subhanahu wa taala moo tax wa annahu kaana yaqulu safihuna alallahi sotata jinne yi nekk dof yi bokk ci ñun hatta jinne yi ñoom lu ñu reconnaître mooy dof yi bokk ci ñoom ñoom ñoo doon wax yàlla am na doom kon nit ñi koy wax ay lan la su jinne yi reconnaître ne wa annahu kaana yaqulu safihuna alallahi satata jinne yi dof ci ñun ñoo doon tuumaal yàlla naan yàlla am na doom waaye yàlla subhanahu wa taala jomb na am doom xoolal jinne yi adresse biñ ci teg ñu ne wa anna zananna an lan taqula al ins wal jinn ala allahi kaziba ñun de yaakaaroon nañu nit ak jinne duñu fenal yàlla nekk dañuy fenal yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala ci hadis buxaari benn riwaaya beneen bi ibnu abbas borom bi toog ba ci yàgg rek mu ne laqad shatamani ibnu adam waaye waaye doomu adama saaga na ma waaye te wa ma yambagi lahu an yashtumani yàllul mu may saaga lan laa ko def ba mu may saaga shatamani ibnu adam te wa ma yambagi lahu an yashtumani doomu adama saaga na ma waaw man yàlla lu ma ko def ak fi ma jaar ak moom ak xoolal ni ma ko bindee doomu adama ne cëpp daal ne ma daggit ab saaga ñu ne yàlla saaga boobu lan la mu ne nee na man yàlla am naa doom te aw ma soxna mbokk yi loolu kuñ ko wax fi luñ la wax suñ ko waxantee benn xalifa général ñu ne xalifa diw dafa am day ngénte place sangam mais amul doom lu ñu wax kooku kan moo nangu fi ñu wax ko way juróom bu góor ku nangu fi ñu wax ko papaam ci ñun sa papa place sàngam daf fay ngénte te amul doom kon tey fi ñu toll mooy jullit yi jël nañu lépp yahud ak nasaraan bàyyeetuñu dara lépp génn leen xool mbedd yi xale yi jigéen yi seen col yi génn leen xool góor ñi tubéy yi fuñ ko takk ak nopp yi ak melokaan yeeg comportement yeeg langage bi lépp la ñu jël yahud ak nasaraan te yonent alayhi salaatu wasalaam waxoon na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku nuru nurul ay nit yaa ngi ñoom a yem jël nañ seen aada yépp bàyyiwuñu dara ci biir ak ci biti lépp loo xam ne tey place bi ñu taxaw ci maqaam bi la nastatiu an nuxsiya fi maqaamina haza haza al asiya fii nii mënuñu fi lim place yooyu wa min al umur allati yajri taqaalidu l kuffaaru fiha bokk na ci mbir yi nga xam ne sax dem nañ ba roy leen ko mooy binaaul maqaabir xoola bàmmeel yi ku dee ñu tabax sa bàmmeel ku weddi li may wax bu ñu sëlmalee jubalal yoof ku dee ñu tabax bàmmeel bi ba ci kaw def ci karo marbre def ci ay fleur ba pare daal di bind ici reposé kan moo leen ne dafa noppalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar bëri na qabru bu ñuy wër di ko ziyaare di daw di ci sotti ay parfum di ci jàmb ay fleur yonent bi nee na borom qabru boobu mu ngi safara qabru rek ñaar rek la rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari nnaar bàmmeel lu tax jarul tabax mooy ñaar kese la benn mu nekk jardin ci jardin aljanna yi wala mu nekk benn xur ci xuru safara yi bu dee borom bàmmeel bi mu ngi aljanna nga tabax bàmmeel bi ban intérêt la ko amal wallahi ciment yi nekk yoof ciment yi nekk yoof ak feer yi suñ ko jëloon mën nañ cee tabax hôpital mën nañ cee tabax jàkk mën nañ cee tabax ay kër miskin yu baree baree baree baree baree baree ciment yi laa wax yi nekk yoof ciment bi fa nekk ciment biñ dajale ci bàmmeel yi ci Sénégal munoon nañ cee tabax ay école yi école yi école munoon nañ cee tabax ay hôpitaux yu dul jeex ñaata bàmmeel yi da ngay gis sax léegi bàmmeelu étage étage nga gis bàmmeel bi ñu def ko étage te yonent bi nee na bàmmeel bu ñu tabax ba laso ko yërmande yàlla dootul wàcc ci bàmmeel bi xanaa xamuñu loolu ku dee rek ñu tabax ko ni nit ñi mel fii ci dëkk bi soo demee ci bàmmeel yi gis noonu la nit ñi wuutee fa kam min quburin tub naa wa ma tub naa fa kam min maridin ut naa wa ma ut naa fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma ala maat dañuy tabax bàmmeel yi rek mais duñu tuub tabax bàmmeel yi rek ku dee rek ñu tabax bàmmeel bu rafet amul njëriñ bàmmeel kenn du ko tabax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko tere waaye fan lañ ko jële ci toppandoo yahud yeeg nasaraan yi foofu lañ ko jëlee moo tax ku dee rek ñu tabax sa bàmmeel rawatina nag bu ñu ne kilifa diine la danañ ko génne ci armeel bi kenn du ko suul ci nit ñi benn ñaar danañ tabax bàmmeel bi ñett dañuy xañ nit ñi sax ñu ne ñu ñaanal ko ndax boo ñëwee léegi ñu ne la déedéet ñaan ko bul ko ñaan bul ko ñaanal yow da nga koy ñaan fekk kooku daa am lu muy maye mu dee ku dee amul lu muy maye ku dee kenn du ko ñaan dafa am benn waaye bu gis benn nit ci ñu réer ñooñu di ñaan ku dee tàllal bàmmeel yi loxo naan sëriñ bi damaa bëgg visa gaa yaa ngi jaar ci gaal yi man bëgguma jaar ci gaal bi yombalal ma visa waa ji daal di koy xool ba caag ne ko oh mu ges mu ne ko sëriñ bi nekku fa de dafa dem Dakar mu ne ko xanaa yow da ngaa dof kii dee nii ñu suul ko nga naan ma dafa dem Dakar mu ne boo gëmoon ne dafa dee ñu suul ko doo ko ñaan lan la yàlla wax waman adallu mimman yad'u min dunillahi man ismu mawsul la man la yastajibu lahu an du'a'i kii ngay woo yàlla nee na du la wuyu mukk boo fi doon taxaw bay woo ba yowmal qiyaamati kii du la wuyu parce que yéen bokkatu leen adduna bu ngeen di dund yow yaa ngi daaru dunya moom mu ngi daarul axira mu ngi barzaq amatu leen communication parce que réseau yi dagg na réseau bi dagg na yàlla dagg na réseau bi moom mu ngi alaxira yow yaa ngi adduna amatu leen communication naka nga koy woowee ba mu lay may ba pare moom amatul dara lum lay may faaqidu shay laa yuti mbokk yi bokk na ci li ñu leen roy mooy seeni feet yi seeni feet yi ñuy feetu lépp da ngay gis tey benn waay boo xam ne jabaram dafa am doom tey mooy bis sàngam rek mu ne tey la sama anniversaire doom ñun ñi ñëpp ñu ci ëpp ñu julli si jumaa seen doom yi dañuy def anniversaire ba ci ahlu sunna yi léegi gis ko def anniversaire tey la sama anniversaire ah jabar ji jëndal la parfum macha allah ñoo ne la pis pis daal lay accolade nga ne oh c'est bon c'est bon ko c'est bon c'est bon wu ci lan ci lan nga ani lan la lii ngay def yëfu kuffaar la yonent bi alayhi salaatu salaam daaw ko def yonent bi bisam te moom lañ jëm ci kanam su ko defee gars yi daal di koy jugaat di màggalaat te bokk ci bisam daf ko doon woor muy bisu altine ñu ne ko lu tax ngay woor altine mu ne ci laa juddu kon yow boo buggee def loolu boo buggee fekkee feetal bés bi nga judd wooral ndax yonent bi loolu kese la doon def ñu ne ko bisu alxamis nag mu ne ci la yàlla di gaaral jëfi jaam ñi ma bëgg yàlla xool sama jëf yàlla daal di may yërëm kon yii ñu leen di toppandoo ci tabax bàmmeel lan la ci yonent bi wax laana allahu alyahud laana allahu ala alyahud wa nasara ittaxazu qubura anbiyaihim masajid yonent moo ko wax yonent nee na yal na yàlla soril yërmande yahud yi ak nasaraan yi lu tax ndax dañoo tabax seeni bàmmeeli yonent ay jàkka tey ñaata ci sunuy kilifa diine lañ suul ci biir jàkka yi waxutuma la sax li kilifa diine yi waaye imaam yi rek bu ñu deewee dañu leen di indi ci jumaa yi daal leen di suul bokk na ci li ñu leen toppandoo mooy feet yi ñuy feetu ci ñoom xoolal tey kenn jàngul Sénégal kenn liggéeyul lu xew dañoo jël feet hatta sax léegi école islamique yi dañuy feetu feet yooyu xanaa ñun duñu ay jullit xanaa ñun duñu ay jullit ñun ay lan lañ ba leen di toppandoo est-ce que mas ngeen gis tabaski wala korité tabaski jot benn yahud wala benn nasaraan dem daral jënd xar ñëw këram ne damay tabaski mas ngeen ko gis. ñun rek ñun ñooy xëccoog ñoom ndeysaan ñun rek ñun ñoo mel ne amul fu ñu bokk ñun ñoo mel ne amuñu diine te kenn ku nekk ci ñun yàlla wàcceel na la sa sharia waaye ñun ñoo xeeb suñu bopp ñoo nekk ay al toppe ñun ñooy roy dàq ñun ñooy xëccoog ñoom. xoolal tey dëkk bi kenn mun mënta nelaw ndax ay pétard te ñu ngi taal ay kër di taal di lakk ay xale xoola barki démb xale bi ngeen dégg ñu ne dafa lakk seen kër ndax pétard xoola barki démb ki ngeen gis ci rajo bi ñu ne dafa lakk ay loxoom ah fan lañ jëm nañ delloo suñu xel nañu yar suñu doom nañu yar suñu njaboot nañu xam ne dañoo am royuwaay muy muhammad alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko yónni woon mu ñëw di wuuteeg ñoom ci lépp dafa wuuteeg ñoom fekk na leen ñuy feetu dimanche ak samedi mu indi àjjuma fekk na leen ñuy fecc di caaxaan moom muy woor samedi bi ak dimanche àjjuma mu def ko bisu feet mu fekk leen ñuy def yeneen feet mu indi korité ak tabaski mu fekk leen sax ba ci sikkim yi ak naanu yi yahuud yi di bàyyi yépp wàcc nasaraan yi di wat sikkim moom mu ne wàññi leen naanu yi ngeen bàyyi sikkim yi ba sax ci jigéen bu gisee règle dañ ko doon daw moom mu ne def leen lépp ba mu des sëy nekk leen ak seeni soxna bi yahud yi déggee loolu dañu ne waa ji lan moo ko dal moom lépp lu mu dégg ñun ñuy def rek dina wuuteeg ñun mu fekk leen seeni jàkka yi lan moo fa nekk kolos ak béjjën yi ñuy ëf mu daal di indi nodd mu fekk leen ñuy julli di simi dàll mu ne bu ngeen di julli sol leen dàll lépp la leen fekk lu ñuy def rek mu daal di def leneen waaw kon naka la yonent bi di ñu jàngalee loolu lépp yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi fi sunnaam bàyyi fi quraan mi ngi nii ci sunuy loxo ñu daan ne ko ñukk di def lu nu neex dafa ne nag suñu defee ba pare nag nekk jullit déedéet yonent bi nee na ku nuru nurulu ay nit yaa ak ñoom a yem te ku nuru nurulu ay nit ba nga dee ñu dekki ndoola ak ñoom nañu mooy ta dikku ku fi roy yahud ak nasaraan boo dee yàlla tabaraka wa taala dalay dekkiloo ak ñoom aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يجهل حقيقة الإسلام بقي nan leen yeewu yeewu jot na bu ñu xumbaa yóbbu bu ñu bëri mbooloo yóbbu bu ñu ñoom diw dañ koy def dañ ko def déedéet kenn ku nekk ci ñun bu yaboo mu yeewu ci mbir yii di xew bu mu waru wala yaxtar bi kasratu man yafaluhu bul waru ndax dëkk bi yëpp a ngi koy def dëkk bi sax seeni loi lool la déedéet dëkk bi dañ ñoo bëgg a ndax moo tax ñu yóbbu ñu foofu di ñu feetloo loolu te ñun ñoo ëpp ñun ñooy jullit parce que ñun ñoo nayif ñun ñoo yaafuus ñoo yaccaaral ñoo bañ a lànk waaye bu ñu xëyoon lànk kon kenn dootu kenn dootu ñu feetloo 31 décembre ak 24 mais ñun ñoo nayif loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax jamono ngi ñëw da ngeen di yaafuus da ngeen di nooy da ngeen di mel ne xusaaka xusaa u sayl da ngeen di mel ne purit purit ci jamono boobu lan toll quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñu leen di feetaloo ay 31 décembre ay 24 di leen feetaloo yu kenn xamul di leen ko forcer di leen ko imposer fal force mooy nayif moo tax ak ñàkk a yeewu ñàkk a comprendre l'islam waaye ñun ay jullit lañ li ñu gëm mooy yàlla kenn la yàlla amul doom lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad kon ñu bëri ñu koy def loolu bum ñu wor ku nekk suñu suñ ci ñun yaa moom sa kër yaa jur say doom yaa takk sa soxna est-ce que gouvernement moo ñu takkal jabar est-ce que bu ñu amee ay doom gouvernement moo ñu ngénteel kon gouvernement bu koy def ñun suñu yoon bu mu ci nekk te ñun ñëpp buñ ko embargo wee wallahi du am benn cafka ci xorom bu mu am waaye bal ñun ñooy bàyyi ba jour 31 ñu dagg suñuy oto utali place de l'indépendance di taal pétard yi di yuuxu di nga dégg léegi gouvernement bi fekk ay fan ñu ne génne nañ 20 millions ndax pétard 30 millions ndax pétard 40 millions ndax pétard taal ko mu daal di naaw loolu ban diine la te ñu am ay malades yu nekk ci hôpitaux yi soxla ordonnance ñu feebar ay ñu nekk ci mbënd seen kër yi am ndox ay problème yu dul jeex Sénégal waaye da ngay gis ñu jël ay 30 millions di ko jënd lan pétard di ko taal mu daal di tàkk daal di jeex benn guddi loolu ban diine la ñan ñoo leen ko may mooy ñun ndax lan ndax ñépp a koy def rek nañ ko def kon bul waru ndax loolu ay jullit yu bari yu comprendre l'islam ñooñu bu ñu la yóbbaale ndax xamuñu lan mooy diine dafa am tey ci jullit yi ñu bare bari li ñu xam ci jullit rek mooy julli si juma dañuy nekk ci lu leen neex ba àjjuma jot ñu da ñu wa ñu watan seen sijaada ñëw teg waaw na imam gaaw ñu dóor ko mu daanu quoi waaye après ñu rag la ji problème yi quoi Eh, loolu du l'islam de l'islam aw dundin la l'islam aw dundin la Eh, dem di julli ji jumaa wala ngay ñëw julli après boo jeexee jeex na Ah, yàlla wax na ko ci alquran laysal bir an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al bir al iman man amana billah da ngay am iman génne lépp lu dul yàlla ci xol bi sànni ko fële ci àll ba soo jëfee yàlla da koo nangu lan moo waral fa waylu lil musallin kuy julli ba pare yàlla ne dama koy yóbbu safara iman bi moo fa nekkul qaalat il arabu amanna yàlla mu ne qul lam tuuminu du dëgg parce que mooy li ñuy li xew nii rek nekk ci la la neex ah da ngay gis ku dangal ba pare julli si juma allahu akbar dangal ba pare takk benn kol gu ndaw ñëw julli si juma ana ana dangal ak juma koy jullil bu fekkoon ne gëm nga yàlla moom ngay jullil est-ce que di nga sol li nga sol bu fekkoon ne gëm nga yàlla est-ce que ginaar yi nga war a rey jour 31 di nga leen rey da nga leen ëpp doole rek képp ku rey ci ñun ginaar yéen a ngi ni toog ku fi rey ginaar 31 rek da nga ko ëpp doole te ginaar gi dina la kalaame ci yàlla ëllëg parce que yaa ngi koy rey ci lu dul diine te yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ku rendi te li nga rendi rendi woo ko ngir yàlla kon bu ñu loo ñu nax ñoo xam ne xamuñu lislaam bari bay bëgg a dee wala di tuddee seen bopp lislaam sax di def mbir yooyu bu mu ñu nax aw laa yajahal xaq aw yajahal xaqiqata diin wala mu réere dëgg-dëgg lan mooy philosophie diine walakin yaatamid hadihi l umur fal musiba hina isin ashad am na ñoo xam ne dañoo xam ba pare teg ci seen tànk musiba bi foofu la gën a rëy ñoo leen gën a tey ne année yii du suñu année barki démb la muharram passé na kan moo yëngatu kan moo jëndal doomam kadoom ban kan moo pentiraat këram kan moo jënd ay fleur kan moo defaraat ay karo këram barki démb rek muharram tey jii ñu ngi ci rabiul awal ci juddu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kan moo bougé personne bal sax julli di dañoo réer a réer ba xamuñu sax calendrier islam bi xamuñu tey la lan li ko waxoon ne tey la lan ci islam di nga gis gars yi raay dopp ne la ah ñun kat li ñu xam ne démb la woon 24 de tey la 25 si wala calendrier tubaab bi rek lañ xam boo leen doon wax sax ci weer yi dañ ko xam fan lañ teg loolu lan moo tax ñun ñu bëgg ñeneen ñi lu tax ñuy dundal leneen li ñu bàyyi li ñu war a dundal olof yi day wax ne ku wàlliwaan sa kër a tëggul ñun nag suñu kër dafa tëgg ixwatal iman ya ibadallah an nahyu an tashabbuhi bihim wal amru bi muxaalafatihim zahir digale gi yàlla digale ne wuute leen yahud ak nasaraan digale gi yonent bi digale ne wuute leen yahud ak nasaraan feeñ na fu ne ci texte diine yi feeñ na fu ne soo jàngee alxuraan gis yàlla li mu wax soo jàngee sunna yonent bi gis yonent bi li mu wax kon ñun liñ nekkee fu ñu ko teg fan lañ ko teg ci lépp nag ah bal sax waxuma la da ngay gis ci ñun ku leen di ñaanal yàlla wala ku leen di nuyu te dégg nga sax ñu ne la bu ñu la waxee ñoom asalaamualeykum yow amoo droit wax wa aleykum salaam waxal wa aleyka nga yem foofu wala nga leen jàmm ngeen yent dañ la wax sax ne soo leen di jaala ji bul wax yal na yàlla yërëm waxal sigi leen di ngaale li ñu bokk nga yem foofu dañ laa wax ne bul taxaw ci seen bàmmeel waaw léegi nag yow nga bëgg a xëccoog ñoom seen feet wallahi bu jullit ñi yëngatul woon ci feetu chrétien yeeg feetu yahudi du saf Sénégal du xeeñ waaye nag ñun ñoo réer ñoo ngi ñaan yàlla mu teg ñu ci raay bi allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله
sawwu waatadilu yarhamukumullah mbokk yi ñu góorgóorlu tollale sàpp yi fatt diggante yi fay portable yi bañ pare julli allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سيب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله